أعني ألا ماهن waaw cheikh bi ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli ci yonent bi di kontaan ci bis bu màgg bu sell bi di kontaan it bërëb bi ñu daje di leen fay nuyoo rek di wax a jërëjëf tey nekk bisu màggal Tuubaa bi nga xamante ni Cheikh Modou Bamba woote na ko. ñu gis tamit te euh, teewaay tey euh, naka nga daal di dundee bis bi nga xamante ne fii nii euh, mbégte la ci bépp doomu ah, mooy baat bi nga mujjee rek mbégte xam nga mbégte moom xoola koy dundal te xool moom jox nañ ko sëñ waa moo waral ñu ñëw ci bis bi di kontaan lool ndax dañuy wax ni bis boo xam ni boo ñaagee ren bala ngaa ñaagaat déwén kon da ngay fexe déwén bu ñëwee nga ñaag-ñaag bu rëy dajalewaat déwén rek di ñaan yàlla ñu mu ñu mën koo tal di ko fekkee chaque at di profité di nuyu sëñ Modou Mbacke mi mandal ak ñoom sëñ ndongo xasida ak jaw ah di wax rek dañoo sàkku si daal dañoo sàkku si yow. sànq ci béréb bi nga mm. njabootu euh, sëriñ Abdou Karim sëñ bi euh, nga xam mm. waaw soxna May xam nga boo nee soxna May ni sëñ Abdou Karim macha allah mu nekk doom ci kër gi ba pare nekk taalibe nekk ku baax ku ubbeeku macha allah daanaka. boo daaw ba ma ñëwee avant may gis sëñ Abdou Karim nii laa defoon ci moom ren it bi ma ñëwee nii laa def ndax moom jëmm la boo xam ni nit gënu ko macha allah di ko ñaanal yàlla di ñaanal it borom kër yi sëñ Abdou Karim di wax rek te moom dañoo ñëw rek sëriñ pour tàllal loxo rek ñaanal ñu incha allah. d'accord euh, donc nga bi moom moo jëm ci euh, ci dëkk bi. Hmm. ci guddi rek parti civile daal di def parti de député. Hmm. donc euh, naka nga ñu ngi koy nemmeeku suñu réew jamono jii. waaw mooy xam nga réew bu demee ba tollu foofu tiitaange jot na ndax ñun ñëpp kenn xamul sa mujj. doo nekkee ñu ngi xëy di sabablu di ñaan yàlla it musal ñu waaye tiit dafay jot nag cheikh bi xam nga fekk nit sa appartement ak anam bi ñu ko reyee lu ko gën a doy waar amul ci kaw suuf te kenn xamagul ba tey kon dafay baax it sécurité bi comme ni ñu koy waxee ñu ci gën a mën a yokk nañ ko ci yokk te xam ne réew mi moom doy na waar te bàyyi xel it ba mu ëpp daal cheikh bi man daal loolu laay faral di wax damay yox ni deewu kii génn na nii dafay xarit yu bëri de trop daal man dama ko ragal léegi daal ndax àdduna kenn xamul te it yuuxu man na jub comme niñ koy waxee te man dama gëm ni sax comme li ma déglu xam nga ñun ñëpp ba boo ne actualité bàyyi xel mais man dama gëm ni rek yuuxu dina jub fuñ foogewul man loolu laa gëm. jàpp nga ni daal nañ mu jël bakkanam xëy xam la ah, ñoo koy déggandoo bu ñu xëyee ñu ni tey da dindi na compte ba ñu xeet ñu ne retiré na wéef sëñ bi nag ku xam sa cot kooku jigéen la n'est-ce pas <laughs> ah man bu doon jaw mii man tey bu doon xaas man la jàppal jaw ndax sama code xam na ko kon kay ku ko jigee rek moo ko mën a def macha allah. comme ba euh, mm-hmm. yenn ci ay bërëb ci Touba. Mm-hmm. Euh, ñu ngi ñàkk ndox ñu ngi ñàkk courant. donc loolu jot na tamit ñi nga xamante ni si ay kilifa jël jël wax autorité yi euh, xëy na bu ñu daal waaw war nañu cee dimbali nag benn ci ñun ñi man mii dem ci guddi maa mujj taal sama dem uti ndox Daaru Salaam ñun sunu bopp citerne yi te li ci yéeme sax mooy dañ koy jaay. waaw loolu beneen yëfa te xëj na du ñëpp la seen loxo jot gannaaw ñu man koo def kon dafay baax it xam nga bisu màggal bis boo xam ne ay millions yi nit ñoo fi daje dafay baax nag te sëñ bi ndox mooy nit kon it nag vraiment na ci kilifa yi gën a def jéego am nañ ci nag rafet jot bi ñu dégloo président Diomaye wax di ko nuy au passage ñu nuy déglu it euh, Ousmane Sonko wax di ko nuy au passage vraiment li ñu wax dafa dal xel gëm naa ni ñoom comme li ñu wax dëkk bu sell bi dañ ci def seen kéemtalaay kàttan ba lépp lu ñuy jooy dina jeex incha allah jërëjëf ñu nuy la wax tey da nga ñëw ci béréb boo xam ne bu symbolique la ci yoonu murid ndax fi nga toog tey di wax euh, tool yi Serigne Fall la ñu jox ko leeru Serigne Fall muy Serigne Abdou Karim ñu jox ko leeru Serigne muy Serigne Abdou euh, di bis boo xamante si itam euh, Serigne Fallu daf cee def jëf joo xam ne laata Serigne Fallu nekk Seexul Xaadim màggalu Tuubaa bu nekk fa la neex nga ko daan defee bi mu toogee di sëñ Touba nag moo ne woon jëf ju baax fa mu gën a saxee fa la gën a baax képp koo xamante ni daal euh, euh, man nga ko màggal si Touba na nga ñëw màggal si ko nga déplacé wu ñëwaat ci bërëb bi te fii nekkoon tool yi sëñ Fall bi nga ñëwee la nga jëkkee ci loolu waaw mooy mbéy mbégte rek xam nga sëñ Fallu mooy yoonu murit ndax yaa ko wax moo ñu fi dajale ndax xam nga màggal Tuubaa dañ daan wax naan ku ci nekk fa nga nekk ko daan defee waaye nag sëñ Fallou woote ni dañ koy fekk ci dëkk bi di ko fi defee ñu ñëw ci tool yi sëñ Fallou toog ci dañuy sant yàlla di ñaan yàlla chaque année yi ñu fiy toog rek soxla bu waay bëgg ak ak lu ci waay indi it yàlla faj ko ndax bërëb bu fajukaay aajo nag mooy nit ñi moom loolu moom sëriñ bi kenn werante wu ko ndax borom naa moo am mooy sëñ Fallou kon nag boo bëggee mu am da ngay ñëw fi mu ko amee leer macha allah loolu 37 forage. soo mhm. jàpp ne kon moo nekk ah. man nag li ma jàpp laay wax ñu ngi door am gouvernement boo xam ne gëm naa ne incha allahu rabbi li ñu wax di nga ko gis. xam nga bu ñëkk dañ doon wax rek te doo xam dëgg-dëgg wax ji fa mujj waaye li ma yëg man sama gëm-gëm laa wax nag gouvernement bii ñu am ndax ñoom bu ñu la joxee dara danañ ko topp danañ ko topp topp ba xam ni fii la yëf yi ne kon nañ am rafet njort yi nii incha allah bii ñëwaan ndox manqué bi dina jeex incha allah. ñu ñëw tuuti transport ndax ñëpp xam nañ ni accident yi dafay faral di bari trop ci bis yu mel nii. Hmm. waaye gis nañ ni gouvernement bi mi ngi def ay effort. Hmm. donc sax euh, secteur de transport bi ñoom jàpp nañ ni na leen humilier parce que dañ leen a fay seen koom-koom ni état bi réagir ci wàllu transport. si ce que gis nga ni noonu moom dox na waxtoom par rapport ak secteur boo xam dañ ko organiser. ah dañ kontaan nag xam nga boo boo xoolee di profité di nuyu El Malick xam nga lim def nii dafa rëy xam nga sëriñ bi askan bi ginnaaw yàlla ñoo jiitu lépp. ndax boo taxawalee sa oto yi gisoo ko ci yebi doo dugg kii demit bu amul oto du dem kon waxtaan rek moo fi sës waaye dama jàpp ni li ñu def ni yërmande la xam nga tey askan bi daan nañ sonn lu mel màggal tarif boo xam ne wóor na la ni tey par exemple lii boo xamee di nga dem Touba xëj na mën na bañ a arrangé ñenn ñi mais ñun ci suñu gis-gis moom dañ ko dañ ko ciy sant di ko ci gërëm accident yi nag comme li nga wax rek xëj na ndogal da ci am waaye nag ñu gën a yaraat dawalin yi am am na solo delluwaat ci sant tuuti rek am na solo aussi mooy ak dal ak parce que nit booy dem ak yar xam ki am yar ki moom loo ko dénk moo ko moom waaye ki amul yar moom loo ko dénk xaar ko ci ku yarawul bu yoree oto dawal ci tali gis nit robeela noo xam ne xam ne kii moom amul yàlla waaw loolu moo jiitu kon ñu yaraat jikko yi yaraat jikko yi yàlla te ñu ñu si delluwaat ci ci barke ba Tuuba hmm. macha allah ñu itam ni ci côté euh, bi lu nekk dafa mel ni nit ñi euh, maanaam wàllu indiscipline dafa xaw a bëri ba da ngay gis koo xam ni fa mu ne euh, ñu baal ñu nag dara matul mën nañ ko waxee loolu bu ñëwee Tuuba rek au lieu que mu nekk gan goo xam day ñëw wane ne ganu sëriñ bi la dund coono mhm. Mhm. day ñëw bu ñëwee nekk bëgg a def benn boppam benn boobu ki war a jógee ngir ñëw ganu sëriñ bu ñëwee mhm. ban comportement la war a indi ak kii war a dalal ganu sëriñ bu ñëwee yan loxo la war a téye ganu sëriñ waaw Touba man dama dama dama jàpp leen xam nga ku fiy wane leen rek xamuloo mooy li may wax rek mbir moo xam ne da ngay ñëw pour duy kon dangay fexe duy la ngay duy yóbbu ci jàmm mais la nga duyeeku si ne boo ko indee bàyyi ko fi musiba la mooy ki ñëw wane comportement boo xam ni baaxul ndax euh, ñun ñëpp yiw lañ fi sàkku si yiw nag boo ko fi sàkku si da ngay ñëwee loo xam ni macha allah kon nañ yaraat jikko yi yaraat jëm yi bu dee ci taalibe yi ñu xool sunu xalifa bi ñu ko ñaanal yàlla bàyyil ñu ko fi sëñ Muntaxa doy na lépp sëñ Muntaxa foog fekk mu ngi ni teg sëñ Mouta foog fekk mu ngi dal buy wax mu ngi ree ñun ñëpp buñ ci xoolee rek dañuy xam fi ñu jëm jërëjëf macha allah. donc sëñ bi wax euh, askan Sénégal euh, rawatina bu doon sensibilisation ci ñaawteef yi nga xamante ne ñu ngi koy faral dund mu bëri lool ci ci dëkk bi. ba bàyyiwaat xel rek mooy lu olof di wax maanaam du ñaaw njort mais ñaw njort la ñaw di bàyyi xel ñi nga war a àndal di bàyyi xel it fi ngay dugg di bàyyi xel ñi ngay waxal parce que borom jikko bu yàqu sëriñ bi boo ko dugalee sa rek yaa ngi loor sa bopp di ñaan yàlla mu musal ñu moom mi nga xam nag moo yor kaaraange yàlla nañ yàlla musal yàlla jàppale ñu yàlla suturaal ñu parce que la sëriñ Cheikh doon wax sutura daal moo mat a ñaan yàlla nañ ko yàlla defal di la wax jërëjëf macha allah jërëjëf صلاة